bu dee boo ñëwee doo jàng foo nekk mën nga faa nekk bu dee boo ñëwee rajo rajo seetaan la indi foo nekk mën nga faa toog yitte ji nga war a am mooy boo accès bërëb boo la orienté ba ne la fii la boo fa toogee lu dul farata wuru laa tax a jóg waaye rikk waaye mbokk mi lu riirum riirum durus mi bari bari fexeel ba gi nga man tam miin ko nga fexe ko yitte woo keroog muy sa bis bañ a wane aale wëlbati kayit ngir diw li muy aalu bari na te fekk li nga jàng baax sëñ bi santaanewul lool na sell la wax nu dellu ci sëñ bi ku jóge fi béréb nag te la nga def ba war faa delluwaat ak jëm ca moom doo war doon sa yitte mi ngi mel ni bu ñu nu génnee àjjana tàbbal nu fii te war war faa delluwaat circonstance yi nii gàllankoor yëpp bu nu defee leneen dañuy gën a tënk looloo tax sëñ bi santaane wuutewul ndaje moo xam ne it dañuy fëx rek da wut si Tuubaa mooy lima ma waxoon daw di wëri jumaak di yuuxoog jàppee xaxaloo dama jàpp ne ku am xel ku ne war naa jëkk yedd boppam ne man de defe naa lay tax mu jag man a